dañoo seetlu depuis bi ñu ne élection locale yi mu ngi war a ñëw rek dafa am benn groupe groupe bi ay opposants ñu ngi ci mais am na ay apéristes yu ci nekk yoo xam ne dañoo kagulewu nanguwuñ feeñ mais man xam naa leen parce que dëkk bi nag moom ñun ñëpp xamante nañu ils sont derrière di pousser ay nit ñuy wër di wax lu bon ci deru maire bi dans les réseaux sociaux dans les ci télé yeeg rajo yi dama waxoon nag ne du ma mës a woo média bi di tontu parce que bëgguma leen sax may buzz dama leen di bàyyi rek ñuy wax seeni wax man ma nekk sama liggéey di liggéey première liñ njëkk wax génnee ko ci média bi mu bett ma lool dañu ne marché ay nu di maire bi daf ko doon defar lekk ci 100 millions man marché ay nu madi damaa fekk marché bi nekk fi lu yàgg ndax defaruñ marché bi hangar lañ doon defar hangar bi dafa daanu xam nga hangar bu daanu ça veut dire marché existé woon na yàgg na kon man marché bi joxewu ma ko dama ko fekk mais bi hangar bi daanoo tabax nañ ko ba mu toll benn niveau mu am problème bloqué lu yàgg man fekkewu ma ko bi ma ñëwee tamit noonu laa ko fekki les commerçants ñoo ñëw ci man ne ma naa leen dimbale marché bi pour mu yegg bi ñu waxee loolu man maa woo entrepreneur bi ak commerçant yi fii sama bureau comme nii ñu waxtaane dañu ko waxtaanee bo jubo ci entrepreneur bi defar marché bi ñom ñu jox ko 250000 ku ko am table xaliss bi ci ñom la doon jaar ñom commission bi ñu di joxlante ak entrepreneur bi mairie musu fa laal 1 franc ta marché bi titre foncier la bo xamné mairie bi dafa waron changer patrimoine bi def ko patrimoine mairie waye nak maire bam fi fekkon mu koy joxe deful lolu daf ko joxe rek changer patrimoine bi kon titre foncier état la bu nek fofu nekkagul ci patrimoine mairie patrimoine état la mais malgré cela ñoom da joxe nañ ko ba nekk na marché man bi ma ñëwee rek le problème bi ñu koy liggéey mais entrepreneur buy defar lu mat téeméeri table sax ku ne jox ko 250 000 mënul mat 150 millions kon man bu ma lekkee ci hangar boobu 150 millions kon entrepreneur bi lan lay jëndee matériel lan lay fay ouvrier xanaa moom bëggul dara donc loolu nga xam ne ay wax ju yàqu la parce que ñoom dañu ne danañu def tous les moyens dénigré ma ba élection locale récépissé bi sax président du ma ko jox président sax bu déggatee Moustapha Mbengue sax day du mooy man lay bañ a gis loolu dinañ ko def man leen buñ ko mënee nañ dem mais loolu jàll bi loolu jàllee ñu ñëwaat encore def benn way boo xam ne sama photo lañ jël jël samay audio yu ba def dajale formé créé ko nu mu leen neexee comme li ñu bëgg dégg saaga ma sax ci biir way bi jël sama image ak yépp dama am famille mais ñu ngi continuer bu ñuy continuer nag day dem ba mujj gi dina jur loo xam ne man ak ñoom ci du neex léegi nag ma ne leen danaa jóg yóbbu leen ci yoon danaa dem fa mbaxane doonee benn kenn ku nekk la nga waxoon ci man danaa ko dem tegul taxawal la ci kanam yoon nga wax nga prouvé ko foofu ci yoon dootuma leen bàyyi pour ñëw ci démb conférence bi ñu def ci sant yàlla déglu naa leen nañ maire ba jaay na mosquée ba jaay na case des tout petits ba jaay na marché ba maanaam infrastructure yi fa dekk jàpp jaay nañ ko loolu la wax man lotissement bi yaakaar naa ñoom ñooy wax sax démb ñu jël leen la ñuy wax lépp nag xamuñu ci dara ndax man lotissement maa leen ko gën a xam ndax man mairie bi na nag 96 ba léegi maa fi ne kon li ma fi xam ñoom xamuñu ko lotissement bi la fa ne ci lotissement administratif ville de Pikine bi li ma ci xam ñoom xamuñu ko man bu dee infrastructure bi ma ñëwee fi ma fi mosquée bi nekk tey ma nga nekk mosquée ba tey fekkoon naa fa ñu joxe fa ñaari parcelle ba ma ñëwee ñaari parcelle yooyu ñu fa jox ay nit man maa leen dindi délégué de quartier baa ngi nee toog du ma bàyyi ma fen yëkkati mille francs jox ko moom pour que mu mën a tabax mosquée bi kon l' espace existe jusqu'à fi nga xam ne def nañ ko euh, case de des euh, tout petits ñu wax foofu fekk naa morcelé ko euh, ki ko morcelé c'est le propriétaire du verger en tant que tel parce que le lotissement administratif dañ koy def ay borom tool yu bari lañ boole ñu dëkk fii nag Kër Massar ku si ne xam nañ fan moo doon sa tool fan la yem bi ñu defee lotissement ba pare kenn ku si nekk ñu jël la nga xam ne plan la ci sa ci sa si sa terrain parcelle ya mu génne ñu jox la acte yi ñu waaw ñu jox la acte yi bi ñu defee loolu am na si ñoo xam ne seen tool infrastructure yel fa génne dañoo bañ ak ville de Pikine ne d'accord ma toolu njaga dindi waleen fa dara sama tool ngeen bëgg fa daggal yi du ma ko nangu loolu problème la ci biir am na yeneen problème yoo xam ne ville de Pikine bi ñuy recensé pour def lotissement administratif bi jaarul yoon recensement bi dañuy fekk ab gardien ci tool borom tukki na dem na États-Unis fukki at ñëwul wala 10 ans 15 ans ñëwul ñu kooku ñëw ne leen maa moom tool bi ñu dër def turam bu ñu lotise pare defar acte yi ci turam jox nañ ko kaa bu mel noonu am na fi kaaw Mamadou Thioune ak mbay Mbaye Mamadou mbay c'est le conseil spécial du premier ministre xam koo kenn du ko fenal fii ci ay ay écran toolam gardien bi daf ko jaay ku ñuy wax du Thioune ñu defar lotissement administratif defar acte yi jox ko Mamadou Thioune Mamadou Mbaye bi mu ñëwee porté plainte tribunal dafa tëj gardien bi ne Mamadou Cuuñ dama toppi gardien bi yow amoo fi dara loolu am na fi kon lotissement bi bëri na lu fi am ci biir loo xam ne ñoom maîtriser wuñ ko man maa ko maîtriser kon donc suñu demee ay nit wax leen ne leen maire bi def na lii wala def na laa ñu dem monter leen woo presse bi financer leen sax wutal leen ay bases ki 16 ki lu ne defloo leen ko monter leen c'est des politiciens encagoulés kenn dëkku fa cuf bi wax deuxième adjoint au maire deuxième adjoint au maire bi maa ko def fii moom daa mën a nekk deuxième adjoint au maire lan la tekki Kër Massar lu ko mën a def deuxième adjoint au maire sama majorité bi mécanique bi ma def maire laa ko jëlee def ko deuxième adjoint au maire mu ànd ak man kële la bokkal parti mooy président commission religieuse topp ko moom su demee yoonam na dem yoonam mais di wër di dénigré bi moo amul benn sens